yaay gis nga trop c'est trop lu ëpp touru kii nag laa bëgg nga waxal xam la la nekkee si kër gi ex jëkkëru Nafi Mbay mi Moussa moom lay waxtaanal ndekete whatsapp wax bu bon wax bu ñaaw bu ne mu waxante ko kooku noonu di yàq deru Nafi ak bébé Dieyna wax mu naan ko bébé Nafi daf ko ubbil compte TikTok compte Instagram naan day day day tiktok ku ne mu saa maanaam wax bu ñaaw bu ne ne xale bi day tegay greffage ak lu ne wax ju ñaaw jooju nag laa bëgg nga wax ko mu arrêté ko ndax looloo tax Moussa keroog mu débarqué fii ci kër gi maa fekk mook yaa aana muy harcelé yaa dox seen diggante jour boobu def loon loolu coow mën na am ci kër gi fii. Moussa moom kañ fi ñëwoon. Moussa keroog sax yow. fani nga dem sama kër tànn période yoy la fi ñew fi ni ciow lu reuy naroon fe am waxal ak ki nak jëf ji ñaan jooju noo mu neex yaay yaay man xawma won suma envoyer message Moussa Moussa day débarqué ci kër gi di fi indi problème Moussa dafa rew rew donc moko japp motax mu def li taw tax ma def ko sax man xam nga Nafi Bey moo ma doon door fan yee bi ma dóoree sama xol bi jeex ma jël message ma envoyé ko Moussa ma xol ni ni nu nu muy def doomam bi way man maa ngi koy réccu yow dooru yag yoy non lolou dafa wara meuna justifier jëf ju bon jëf ju ñaaw ji nga def ni yow dang danga mënul dimbali te degluma du gis nga limay waxe ngi ni naf mbay paaka la ko gennel tay ji naf Mbaye bu topone xolam. jam ko paaka bi du ñu indil problème ñun ñëpp. paaka paaka kay. na fi may mii jigéen lu muy dox di yore paaka muy mel ni góor ah. ah Nafi Mbaye nag moom Nafi mbay nu mu nekkee moom baaxul moom Nafi Mbaye moom war nañu wax ak moom dafa réew moom ndax paaka góor sax yoratu ko mas sa jigéen. yaay yaay magum jëmm nga àtteel dëgg donte Nafi waru koo génneel paaka waaye est-ce que ma fan la tolloon ba def loolu noonu. te gis nga ñun ñoo tooñ kii bu tooñee mel na ni ñun ñoo tooñ buñ ci noppee ne pat day mel ni ñun dañoo ànd si jëf ji mu jëf li li ñu war a def mooy baalu àq wax ji fin te leen laal la xamal nag sama tata ana gis ko yéen ñaar ngeen waxtaan ngeen baalante àq ñu nekk si jàmm kër gi ñëpp nekk si jàmm bu soobee yàlla bu may jóge fii rek dem ci aana wax ak moom insha allah. kon baax loolu laa bëggoon xam. yow toppee nga ma mbooro de toppee nga ma mbooro mbo toppee nga ma mbooro yow da nga ba xamoo nooy def yow ku réew nga ah, ñàkk jambul yaay man maa tey te yow yaa ma gën a ñàkk doom lii da bëgg a yónnee doo gis ko yónnee ana mbay mbax naa def maa ngi man de dafa am lu ma jaaxal maanaam nekk nu xale yi ci biir kër gi dama bëggoon ñu wax seen diggante balaa affaire bi uppi loxo parce que di ba seen papa génnee fii xale yaa ngi def lu ëpp gannaaw yàlla nag jàmm moo gën aw ay sama raq nga doo sama wujj ñu bokk njabootal xale yi dama bëggoon nag nga wax ak sa doom ji na fi mbay ma wax ak sama doom ji ndax jàmm mun a am ci biir kër gi man looloy sama xalaat jërëjëf boppul asu dégg naa wax ci tëj nga wax ji da daanaka nee nga nga at sa doom ma at sama doom ci lu leer kon xàjjatle bi leer na waaye yow bu fekkente ne mat nga li nga doon nga ni yaay aawa ci biir kër gi fanweeri at ak nangam sëy nga ko fii asuba li la war mooy su na fi mbay génnee lee ayaa paaka tamuy magam ñu bokk benn baay lii sa wareef mooy xolal nga woo na fi mbay ba mu ñëw ak ayaa ne leen dama leen soxla ndax leen ba ñu ñëw toog soo nee fuuf nafi fi mbay kaabaabam gi talaata ko ba nelaw ci kawam du ma wax du ma xam nga lu tax damay xam ne yaa ko war def xàjjatle wo nga ku ci ayaatala alar bako ken du wax dañuy xam ne sa wareef nga def ba waye bu fekente ne xalé yi joté nañ amo loy def lu ñu tok nan artu sa dom mar sama dom defo yefi kilifa de waye nak batay baxna jam nga wote la paix benn problème drapeau blanc bi la soo defee leneen nit rek rek fekk fi aana rek an zoo ngay am. jërëjëf. ok jërëjëf. maa ngi jóg dem tey. baax na waaw. sëy ci kër 30 ans et quelque fanweeri at ak nangam ay xale jote nga war a jëf jëfi kilifa war a wax waxi kilifa. war leen a woo ku ci nekk ak la ko ak ak la nga leen di wax ba bu ëllëgee duñ ko xalaat seen xel du ko xalaat te duñ ko ñeme amoo looy def lu toog naan ma an ah, damaa bëgg xale yi am jàmm damaa bëgg xale yi def nangam sàngam fayin asuba mii asuba mii est-ce que nit la est-ce que nit la kii yow sama tànk yi nga menace pour lan la na nga fexé ba secteur bu mu laal sama tànk est-ce que may dégg. ma tay xam nga neex ma. magum jëm di fomp ya gëna gis ni ma ngi fomp bëgg ma tooñoo bëgg ma ruxa tax nga ñëw tok fi damay fomp bu la morso bi laalé dara duma ci fekk dégg nga ma. yow bo nekkon jabar ju baax so ma gisé ma yow di nga tek sa morso ma yow bo nekkon eh, taw bu baax heure bi du la fekk nga déjji kanaa pépp ya ko norol te du jëru sa xaar nga melni tuba bu def gis nga bo ma moytu ci kër gi la ma dé rek.

ci kii ba mu tontu ko waaye na remplir frigo parce que gis naa ne lépp jeex na du jën du li tax ku la yéene lu bon jiitu la ca ah. ndax yàlla nee na booy jël ay biir di ci defub lekk moo gën tabax jàq te yow ci loolu nga ne <laughs> yow bu la neexoon ni ci mbedd bi mel ni ñi may bañ a tudd di ruux seen magu jabar rek di ruux seen rakku jabar mais yow dara dala cee fekk yow suñu yaram yëpp vitamine la ndax yow yal na sa jàmm yàgg waaye na fi mbay yal na fi yàgg waay waay waay waay jëlal. Aya. ah. ça va sama na nga fanaane. maa ne yaa ngi si sant wér macha allah. ndekki nga. ndekki ndekkee gu ma. bii tax defaloo ko mu ndekki. waaye kii balaa muy ndekki na fi nga ndekki ba pare yeewoo goo te yow tant que ndekki woo moom du ndekki da ngay ndekki ba géex naan sa boisson fi ngay dem nga dem fam bu desee ma jox ko. kii yow xamoo ma sax. ku ci aye boo xëyee defaral gi ñi ko war a defaral ñëpp mais yow yaa ndekkeegul moo tax yow boo ndékkiwul nan lay ndékkee yow ya da ngay ndékki ba suur naan sa boisson nga dem fi ngay dem ba ñëw mu soog a ndékki man du ma taaw kii mooy taaw waaye taaw bu taawee ko wul la ah Biba. Hmm, man kay bàyyi autorisé naa la lépp ba mu des ma taxaw ngay xas sama grande sœur. d'accord xam taw bu tawee wala ci ñun nga ko déggee. moom kay déedéet man kay kii man bu dee bëgg nga ma koy defaral amul benn problème naa ko defaral ndékki mais yow yaa tax yow yaa tax ma koy defaral mu ndékki. waaye wuy <laughs> léegi yow boo xëyee. waaye mhm. wootee. ndax ay ak nga ñàkk ay defal ko amul problème ñu soog a lekk. d' accord loolu mooy yoon. d' accord yaa nga ca yoon mais sañ-sañ nga de. waaw merci beaucoup wuy ma euh, jëndal naa la yow mayaat ku nekk benn waay waay waay waay maa yéex a tuxu waay ndekete kër goo am ñi waay li tax waay ici waay waay waay maa yéex a tuxu waay waaw ba ci kanam maa ngi ñëw sa bopp bi dafa rafet de gis na kii li muy def yow gis na Aya Aya moo tax ci kër gi baal bu may tagg Nafi Mbaye di ko waxal yu baaxam nga ciy dugg yow mënoo génn sama diggante ak Nafi Mbaye kii jox na ma bopp ba pare mënatoo ci dara yow dangaa foog ne ma damaa dof man man di ngeen def seen coalisation yéen yéen famille Cisco yéen ñëpp ngeen eenal ma man daw lonk ci Nafi Mbaye balaa affaire yi gën a ñaaw. Purchase your tracks today.